ma maa ngi tudd euh, Djibi Diop Diémé maay euh, gardien de but ñaari tali bi bon xanaa am kontaan trop si euh, terrain bi ni mu paree quoi parce que lii suñu avantage la quoi d'une part parce que tout le temps nekk si yeneen terrain yi foofu la ñuy faral di dem di entraîner mais comme que léegi am na suñu terrain suñu terrain boobu kontaan trop si loolu quoi. mun nañ pare di entraîner ay deux séances trois séances si si journée bi wala si semaine bi quoi waaw loolu kontaan nañ si trop waaw. waaw actuellement nii ñëpp gis nañ dañoo wàcc mais ñun suñu nawet bi du foofu quoi. effectivement yëpp jëm ci kaw gën a gën a gën a nekkaat ci kaw quoi comme les cinq premiers yi fu ñu nekk quoi instant yii foofu lañ bëgg a malgré ñu suuf mais suñu xel bi ci kaw la nekk quoi waaw loolu lañ bëgg a yéeg ci kaw quoi a allah. man damay lancer message bi si surtout ci supporters yi quoi bu ñu bàyyi seen loxo quoi nañ ñu soutenir ñu supporter ñu ñaan ak ñaan ak ci kaw a yéeg ci nekkee di football ñu supporters yi bu a mën a motiver loolu pour ci kaw. waaw mais bu ñu bàyyi daal ñun bu ñu bàyyi dañ def tout mun a mun fa mu nekk quoi parce que mu nekk def luñ sa neexuñu bu baax a baax. waaw lii contentement bu rëy la si ñun. nekk na loo xamante ni. ñu koy xaar ay années yu def tey a nii si kontaan ñu koy rafetlu bu baax parce que lii équipe bu ne su soñoon day am terrain. day dooleel équipe day loo xamante ni ko nañ am opportunité mu liggéey ko bu suñu position suñu place te ñun xam def na tout pour yëkkati équipe bi delawaat ko niveau bu mu nekkoon te loolu noonu par nañ yi ñu daan am di dem di yëpp wàcc nañu parce que charge bu métti la woon ci kaw équipe bi tey jii yàlla ñëw na ñu am suñu terrain bopp comme li ma wax sànq rek dinañ am temps pour liggéey lu bëree gën a mën a progresser mais équipe terrain daf ci bokk di nga am li xamante ni euh, moom moom moo nekkoon problème pour équipe bi mën nekk ci kanam avancé. waaw di rafetlu bu baax initiative bi kontaan. supporters yeeg si ñëpp parce que supporter mooy deuxième force équipe ñun ñun ñu dem sans ñoom te ñoom tam ñu dem sans ñun ñun nañu wax rek ñoom ñu gën xam encouragé xam ñun incha allah euh, équipe bi mu nekk ni suuf nañ ko yëkkati ba ci kaw a ñoom nañ si kontaan bu baax a baax. asalaamaaleykum man tudd Abdou Karim Mané. GNGB ñaari tali ñun instant bi dañuy ne dañuy ne ça va quoi dañuy dañuy dañuy bëgg dañoo bëgg quoi heure bi vraiment parce que lii nii xam nga yombul quoi yombul yombul yombul quoi xam nga dañuy dañuy ñaan rek dañuy dañuy ñaanal suñu président bi ñaanal la ñoom ñëpp lépp lu ñu bëgg daal yàlla ci yàlla yàlla def euh, ndox bu sedd guy quoi léegi nag instant bi nii sur sur ñu la des quoi vraiment si ñu la des ñun joueurs yi ñoo ñu gën a jàpp jàppalante ñuy supporteurs yëpp ñu jàppalante ñu booloo doon benn ñu gën a góorgóorlu parce que instant bi nekkee du place am quoi vraiment léegi gën a góorgóorlu pour mun a yooyu yëgal bi ci kaw. nekk di mooy lont actuellement mooy am na am mooy moom ça va quoi parce que lii nii yombul quoi parce que soo amee sa terrain bopp di nga nga am temps di di am trois séances par jour donc soo amee trois séances par par jour ça parce que soo xoolee ñun équipe yu bëri loolu ñoo teewoon ay génération foot ay jàmbaar dañoo dañoo am seen terrain bu moom moo tax ñoom ñu ne nekk ci kaw sax instant mais ñun tey ça va alhamdulilah ñu euh, def na suñu rêve am na quoi ñu am suñu terrain bopp euh, te te te euh, ça va quoi dina baax waaw dina baax Sénégal surtout yéen jeunes yi. xanaa di leen wax rek ñu a taxaw xale yi quoi ñu gën a taxaw parce que parce que tey fu ba Sénégal bi toll fi nga xamante dañoo war a taxaw quoi parce que ñun ñun tey dañoo bàyyi lépp dañoo bàyyi jàng dañoo dañoo bàyyi lépp quoi ya yaakaar ci football bi ñu yor suñuy famille xam nga gars yi xam nga si euh, ñun tamit bu baax lay ñun daal da ñaan yàlla ñu ñu ñu gën a taxaw football bi quoi ñu a ñoo taxaw ci moyens yëpp ci moyens yëpp quoi. venant de euh, NGB parce que ku xam NGB xam ni esprit d' communautaire la xam ni sens élevé de patriotisme la. mais xam ne aussi don de soi la parce que lii buñ koy def xaaruñ si dara mais dañoo xam ni fii la ñuy ñu tuddee NGB muy ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie màggal fekk fi baax ba baax fekk leen fi ñu jàpp ñoom la lañu defal seen gox dama koy tey gis seen yu nekk ci ginnaaw projet bi et puis gëm ko ànd si ak détermination malgré amoon na ay xam nañu ku liggéey si bopp wala tey tey feet la mais tey la. d'un engagement patriotique mais envers sa communauté. Donc moi je dis aussi à MGB, félicitations aux dirigeants de MGB, mais félicitations aux supporters de MGB et à toute la population de leur engagement. En tout cas, nous devons faire encore un signal fort. l'ensemble des clubs du Sénégal Jean Dieng dara boobu doonalee dara ñu ne moom la woon fii la fii la dooree comme dañuy sant yàlla li delluwaat sant yàlla tey lii ñu ñëpp ñoo ko àndandoo ñoo ko mérité ñu ñëpp yàlla ñu ba suñu équipe bu mu nekk ci suuf yàlla jëlee jëlee ko foofu mu nekk si kaw ba ñu meccee ba déwén incha ñu mën a defaraat parce que lépp club yëpp dañu yéene nii sama sago ay jaraaf ak HLM ak fépp club yëpp am terrain te door na fi yàlla na ko yàlla dooral ci ñeneen ñëpp ci daraja Seydina Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi remercier tamit ministre Amadou Ba ñu ngi koy remercier le ministre di koy remercier di remercier tamit euh, Matar Ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier président Djibril Wade surtout ñu koy remercier ñun ñëwaat ñaari tali amuñu fayam amuñu fayam parce que moom bu ñu woon moom dara du sotti yàlla na gudd fan ba fekk ay njëriñu njëriñam njëriñam njëriñ ci terrain yàlla na leen yàlla jàppale yéen ñëpp